Boy Diobass mi ngi ñëwoon mu ngi ne tekk di déglu am na lu muy seere Boy Diobass lapatàgge la wala ñu jox ginnaaw nag Boy moo ñu jox ginnaaw moo ñu woon ginnaaw vidéo mu ngi leewatoo Boy Diobass nee na tekk samedi le 18 novembre 2023 fii ci arène nationale ak Boy Diobass ngay nga xamante ne borom ak kii borom euh, tente bi video la video moy tente bi mu ngi dëkk Thiaroy ñuy faral di dem crise cardiaque dañuy seetaan nañu macca tangal comme niñ koy waxee video mo tente bi mo jaxalo ak ñun mo dekk jaaray Boy Diobass mo ñu won ginaaw eh ay way boy bonne chance Boy Diobass Boy Diobass won ñu ginaaw arbi bi souple na ñi ngi lewento grand combat Boy jobas mbaru Medina ekiri koloban bolo Médina dëkk mais dafa ne suy bëree day ñëw ba Diobass ndax see dafa ne big moo man seede saafen la Diobass laay ngémbo tey tey tey Antoine boo Diobass bu muy yéeg ci oto bi di ñëw yaay ji oh, te ñun ñëpp a jooy. waaw ñun ñëpp jooy. doom ak ndeyam rek. bilaay walaay waaye mbër bu nekk tamit am nga yay yaay kii buy ñaanal kii fële yaay kii di ñaanal kii fii waaye li ñuy ñaan tey ñu ngi ñaan yàlla arbitre may boy Diobass ndam bu sedd guy. arbitre atte na nee na def ñu action combat bi oy euh, euh, big mo waman hana ɗikki wanin ndi eyi eh, ɓe ɓimber cikanak si ya ɗum kaɗa conseillé une jangga moron fo ina in hayna bilayi arbitre ari mohamed dior won saben jan finfinobu saben jan finfinobu je suis depuis sangue hamboudia arbitre suble watna boy jobas moñi won ginaw boy jobas moñi won ginaw arbitre sublena ceyli Bojo Baas moo ñu woon ginnaaw ba tey dara amagul arbitre arrêté waat na combat bi jox na Vito avertissement wàññeeku ci Bojo Baas jox ko avertissement ku nekk am na avertissement ku nekk benn avertissement mu ne leen bëree woo leen. et eh, bi yoon defe naa ne action dina am ba euh, boog moo. am naa yaakaar mi ko doon déglu comme waa ji lañ favoriser woon Bojo na ko. premier round ñëwul Boy Diobass mun na xaar deuxième round peut mu def différent mais fàttali la ne waa Diobass ñu ngi saafi rek ayca Boy Diobass Boy Diobass mi ngi lewantoo jëm na cokkaas waa ji jëm na cokkaas bi mu ngay gën a bari jàppante baaraam ba moo mën naa ne jaari di Boy eh jaari apare di Boy Diobass ngay dox ci koom waa ji na Boy Diobass door na ko waa ji arrière na Sonkoy Sonkoy daje nañu daje nañu Boy Diobass am na ngemb ngemb waa ji nga na de Boy Diobass moo ñu woon ginnaaw Boy Diobass moo ñu woon ginnaaw waa arbitre jógal foofu waay arbitre ah Boy Diobass moo ñu woon ginnaaw laba laba arbitre voilà jaari ka normalement jaari gankin voilà ka ardo Boy Diobass bay di ardo ko badem badem badem jaarayam na kay ardo woti nga bay jaari ardo waaw wot nga supporter ci beri yoni ba wadak ndi woti waaw dem jaarayam kang dikingi na ka ardo be di marak de ngini na ngane de hewndi bit mo man hane laɓi bo jowal ak yari ak kontiné rek no yaaren ni kawwe aren kene wa laɓil bo jomas laɓ yari bo miski miska bina ngane wa soni yaari a kanje saven jen bak eh, weɓane bambat ci billahi walay bambat kursi ba bak, ba ba ko king ba bambat kursi ba ko king ba laɓi bo laɓi bo jomas laɓ yari bo asi yaari ganti a continent tana en gole jari. boy bas, eh, eh, big mo yaari amanane a nek a piruk ni boy <laughs> yaarisam ni a ah, non a ah, nekk xa ah, sax mais a yaaki a ponkal waaye tamit a respecté bo joba a respecté ri bo joba jaari yaaki a ponkal bo si woyi de alabi jaari bo jaari sami gaañu kadi ardo donte na mala ko nekk a bâtissement yino andu an commande nubi minute ardus bo leegi jaari kadi ardo ay wosam fito bo joba so kisi ngan geew arbitre yaɓe koy arbitre yaɓe koy si combani bo joba sa balaa lewantoo cey waaw Wow abdou sey si ñu ngi lewaatoo ba léegi gannaaw bi nga xamante ne boo jobaas yóbbu na Vito Ardo arbi sifle waat na ñu ngi lewaatoo boo jobaas moo ñu wan ginnaaw boo jobaas moo ñu wan ginnaaw moo bàyyee ko jobaas région de la fukki combat ak ñetti defet la am ñaari match nul fukki def fukki victoire bo jabas mu nga koy ñam Boy Diabass mu ngi dox ci kawam waji ji bo jabas eh eh attention waji ji sori na Boy Diabass waa ji sori na Boy Diabass Vito sori na Boy Diabass dafa jëwaat ak mom dafa jëwaat ak mom bo jabas mu ngi ko Boy da melni da bëggam am ngemb mu nek ni ben loxo bi téye na ci ngemb waji direction jàppante nañu Boy Diobass ngeen ndengeñ na ko Senghor yaa ngay wadd Boy Diobass na ko waa ji moo ko sut moo sut Boy Diobass moo ko long moo ko large moo ko long moo ko large waaye Boy Diobass na ko waa amul ngemb Boy Diobass na ngemb waa ji mi ngi jàpp ci Senghor yi Boy Diobass lu mu nar a def booy joobaas lu mu def adduna lu ne xaj lu ne xaj na xatar bi mën naa def nii mais kenn dooragul sa morom xaj sa yëkkati taf tafu ko plaqué xam xaj fi xatar bi moo gën a gaaw sax fii fu booy joobaas jàpp noonu fu mu ne nii mel ni ne ñoom ñaar ñëpp seen premier souffle mooy génn booy joobaas moo ñu won ginnaaw Senghor yaa ngay langa ca suuf boppu waa jaa ngay feeñ ca kaw boppu waa jaa ngay boppu filoo mu ngay feeñ ca kaw moo tent noonu cey booy joobaas cey Boy Diobass Boy Diobass ligel ya jappo acha arbi nee na bëre leen bas Diobass Boy Diobass liggéeyal yaa jàpp arbitre jógal boobu Boy Diobass Boy Diobass Boy ngi ko war nawul Boy Diobass mi ngi def action Boy Diobass mi ngi tanté arule waa mais waji da melni guy Boy Diobass merci salut Ciss depuis Maroc ñu ngi lay nuyu bo jobas mu ngi koy jéem a mais waji mayu ko ko Vito mayu ko bo jobas mayu ko dara Vito mayu ko bo jobas samedi 18 novembre 2023 grand combat arène nationale bo jobas ak Vito Vito mi ngi langaamu ci sengori bo jobas ba tay mais ba tay mu na la wax na jappul ci fenn jappul fu wóor waaye Boy Diobass am na ngemb mbër am nga ngemb liggéeyal Boy Diobass nag daa soxla combat bi. fu mu nekk ne nag ku naagu daanu de. waxoon na ma ne combat bi fu ko jëmee xam na ko. Mhm. Antoine Var a ngi nee Var. waaw Var ngi nii di xaar ay waay. Boy action amagul Boy Diobass Vito Boy Diobass moo féete gauche Silf ma meen depuis Maroc ñu ngi lay nuyu Boy Diobass moo féete gauche dañ ñoo xaw sori Vito moo féete droite arbitre baa ngay waaj dem àtte arbitre bàyyi ñu bëre Boy Diobass mu ngay xatar bi waaji waaji sori na um jàpp Boy Diobass waaji ci sengoor yeeg lay lang ngemb waaji daa ngante Boy Diobass mënu ci dugal dara waji ngemb da jangan fala baram bo ya, jobas modin de ya, yak yak yak bal jobas awat nak ndug ning ngang moda wa mindik parce que jaar ke dina dina mor ko kano wala mor ko tiwi yaay ya, boy jobas ni xamé nak wa amide ngang ki wa amide waaw wa amide ngam ba ci de rak ngam boy a 25 ngor ci rek jaari za ah, yak yak postana ubi bo jobas dole parce que yak yak jen ubi bo jobas dole da ende ende tone pression ende tege pression a volé mais waaye nag big moo entraînement dëgg nam pil la pul lox nga ngeen ci billaay wallaay l'enfant noir waaw waxal Boy Diobass am na na waa ji yóbbu na waa ji ardo na waa ji moom moo am sens moom moo jàpp moom moo am ngemb sax ah moom moo am ngemb waa ji amatul ngemb waa amatul ngemb mais Boy Diobass am ngemb ngeen ko kenn xamul lu mu nar xacca taf xattar bi lay bëgg a def wala da koy njollar bi wëndeeloo ak moom kenn xamul lu booy def Boy Diobass def stade baa ngi naan teg Boy Diobass da ngay yóotu ba Boy Diobass mu ngay bëgg a jeexal combat ba Boy Diobass Boy Diobass Boy Diobass mu ngay bëgg a jeexal combat ba Boy Diobass Boy na waa ji Boy na waa ji Boy de fali de de Boy Diobass fali de de Boy Diobass de moƴƴoɓe soliɗe a boliɗe moƴƴoɓe soli jaari yara keni bombani reyi oɗe takfit e moƴƴoɓe allahu akbar moƴƴoɓe soli jaari moƴƴoɓe soli بمدينة نمر اليونس